ah eh, Saadaani Saadaani sa sa sa nijaay ngay attaqué mais nag def nga lu rafet quoi parce que nit day déglu conseil jëkkëram yéen sa jëkkër sant sa jëkkër bu la nee dugal ci teen sax dugal loolu moom yàlla wax na ko alxuraan quoi jëkkër dañ koy déggal yow déggal nga sa jëkkër ci conseil bi mu la jox pour nga daal sama kaw man nag sa nijaay la mais dama lay xamal len rek sama ñaari salaire ak ñett moom mu ngi mel ni nga ne sëñ Tuubaa murit la loolu présidence ak port ak poste si rajo bi mu may jël xam mais daf ma ne naa ko defal naa ko ñu bari naa la ko defal jarul ngay liggéey si moom moo ma recruter mooy sama directeur général poste defal na ko trois cent personnes te mën naa la ci jox ñu bari yow man rek nga tudd mën naa la gën a dimbali sax jox la ay nga xam ni si Siré day recruter ñoo xam duñu liggéey parce que sa borom kër recruter na ko moom ñetti soxnaam ci benn kër loolu je pense que est rafet na est-ce que loolu waa Thiès waruñ ci woon am su fekkee da bëgg a wax wax boo xamante ni dafay arranger directeur man ay fee laa wax attaqué wu ma personne. dama ni doxalinam ci élection yi rafetul kenn du campagne quatre heures du matin kenn du campagne de vingt deux heures au quatre heures loolu la wax kenn du jël auto direction nationale bàyyi ci poste bi di wër ci dëkk bi dañuy gën a jéppi kenn du jël xaalisu comité électoral nga xeex ba ñu jox la ko nga dem ñibbi sa kër woote woo benn réunion comité électoral loolu laa wax rafetul ba pare moo tax yàlla fayee ko benn watkat la benn coiffeur bu nekk ville bu tudd Martin moo ko gañe ci feefam loolu laa ne jàngat la ci politique yéen nag comme ay partisans da ngeen di xool lu neex nit man xooluma lu neex nit alliance pour la république laa bokk Macky Sall dinaa ko wax li xew Thiès te je vais organiser une conférence de presse wax ko mu leer à partir de demain à 17h da hôtel bi benn place ku leen neex nag wax leen li ma ma yónni kenn yónni wu ma man maa xool li li ma war a wax wax ko u ñaari liggéey bi nag loo ci def rek. yow Saadaan loo ci def maa la ci sant di la ci gërëm puisque bu ngeen bu ngeen mënee Siré Dia bu muy embauché nit ñi kenn neew ko embauché ñu xam na ni maa ngi port benn salaire u mooy ñeenti salaire u poste moom moo ne ma dama lay recruter pour di la may xaalis par weer quatre ma fu may liggéeyee ne lañ ma pootu point kon nag xam na lool da pare bàyyi ko kon kuy responsable man wala directeur général bi waxal man wala Siré Dia kan mooy responsable li xew loolu laa bëgg a dégg